bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ñun ñëpp ci Yàlla lañu jóge ci Yàlla lañu dellu maa ngi jaal askanu Sénégal gépp di ko jaaree ci site bu mag bii Dakar Actu euh, mbokk mu tedd mu baax moom nga xam ni wax naa ko démb ci ay xët mbokk journaliste yi doon wax ak man ne euh, li ñuy liyee booleñu ñu ñun ak moom dafa xaw a bëri Euh, bi si jiitu mooy suñ mbokkum taalibe la bi ci desit mu defoon ma rek defoon ma soppe bi ci desit muy suñu mbokk ñu bokk askanu naar démb bi ma yëg xew-xew bi maa ngi jóge Porokhane di ñëw tollu mbuur si ma ko waxee waaye moom laa njëkk woowu mu confirmé ma ko mu doon nag nouvelle bu tiis bañ ma ko waxee la mu njëkk xalaat mooy kooku de Porokhane la jëmoon wala fa la fa la jóge effectivement bi may vérifié ñu ne ma fa la doon dem waaye da ko jaare woon ci yoonu xombal bi bëggoon jaar xëy na ci côté Bambey euh, waaye lépp nag niñ ko delloo suñu borom bi subhanahu wa taala euh, te xam ne ndogalu suñu borom la di jaare aussi soxnaam si nga xam ni soxna Fatou di surtout sëñ sàmba doon jigéen yu baax jigéen ju ubbiku man daanaa dem ci kër ga léeg-léeg di fa ànd ak Alaaji Bakar Jaañ ñu fay yendu waaye boo demee da ngay sa xam ne fii kër sang la kër taalibe la kër nu ñu baax la di ko jaale aussi bu fay bi nga xam ne euh, moo doon loxo nday jooram mën nañ di porte parole di ko waxal bi mujjee daje rek yàggul ca ndakaaru ci dëju yaayu Daado Diop mi nga xam ne moo jiite naari jigéenu naari ci Sénégal keroog euh, kàddu nekk wax na ko ci man mi moom bu fay moomu te mbooloo bi foog teew mu doon taalibe Sëriñ Tuubaa doon nit ku baax doon ko mën a lu baax euh, kon potoo profité ji rek delloo nit ñi ci ñu gën a gëm yàlla gën tënku ci lu baax te xam ne àddina bi du jeex la te kenn ku ne jëf yiw yi nga def fii moom ngay fekk fa nga jëm eh, jóge na ci kër yu yaatu tey ñu ngi koy denc ci suufu Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha it eh, def ci tawfiix ndax fekk na ko Poroxaan bi ñu ko ne Poroxaan la jëm si woon dañ ñu ko indil fii ndax loolu yëpp day wane xëru Sëriñ Mountakha ci ci taalibe yi waaye bi mu gisaatee ni loolu mën naa diis ak tey jii Poroxaan na muy xate eh, mu ne nañ ko far yóbbu Tuubaa ci Sëriñ Tuubaa loolu it du doon doon tawfiixu Talla la muy bis bi xam ni maam jaara la. di wajuru Maulana Cheikh Ahmad bakhari Xaadimu nga xamni ci dañ koy dee ci wa premier guddeem doon guddik àjjuma tay jëm suba te guddik àjjuma ñëpp xam nañu yiw gi ci yalla dal kon ñi ngi ñaanal yalla teeru ko ci àjjuna kawam di ko jaar aussi son excellence le président Macky Sall ndax ñëpp gisoon nañ engagement ci wetu président ndax mo wax na ma ci làmmiñu ni ma campagne eh, bi mujju bi bëri na fo xamni an na fa président ci ci oto boppam lay nekk ci auto président te gis ngeen ni bëri na dëkk yo xamni ne fa président demee bala jël cadeau da doon wax ne na Chérif Abdourahmane Fall te daal ubbi kon nag moom ñu ngi ko jaal di ko jaal askanu naar yëpp nga xam ne moo leen jiite woon di ko jaal mbokki Baye Fall yi di ko jaal taalibe yi waaye di ko jaal nag euh, aussi famille bu mag bi mu bokk ndax ñu bi ñu mujjee Mauritanie rek matul weer man ak Cheikh Mouhamadul Bachir dem nañ ba ziare famille bi nga xam ne fale la bokk keroog ba ma fa demee dama ko woo ni ko tey de maa ngi sa biir mbokk mu bég lool nit la ko xam ne dafa ma defoon confident am euh, di ma laaj sama wax ak léegi defe naa fukki fan ak juróom mën ko mooy bi ñu nekkee Mauritanie mais saa su nekk daana ma wan cofeelam ci Cheikh Mouhamadou Bachir ni ma ne suñ Bass de euh, wooyu juram Cheikh Abdou suñu Abdou moom laa gënoon jaxasool ci waa kër Sëriñ Tuubaa euh, kon nag saa su ne dama ko feddali su ma gisee su ma gisul couleur googu mi ngi ci moom euh, bi ñu ubbi Masaalikul Jinaan daf ko fekk mu nekk France di faju waaye man mii la ma man de maa ngi fi waaye mënumaa ñàkk dugal sama addiyee ci Masaalikul Jinaan daal di yónnee ay gileem yónnee fa ceeb yónnee fa diwli yónnee fa ndox mu bëri Euh, Iba Gaz si accès moom Alaaji Mbàkke fay téléphone paas ko ko ñu waxante lu yàgg ñoom ñaar. Euh, kon daal sama confident la woon euh, daana def lu ko ñor lu muy dox Touba di ma ci laaj sama xalaat lu muy dox lu ko ñor ci communauté moom bi di ma laaj sama lu muy dox lu ko ñor ci taalibe gi di ma ci laaj sama xalaat. léeg-léeg mu am jafe mbokk woo ma ne ma ma ci xalaatal man ko defeel nii ak nii ak naa donc baax la woon ku tedd la woon ku amoon ouverture d'esprit la woon ku gëmoon ni aussi moo war a dimbali nit ñi la mel ni ku ñu dimbali.